ñu féliciter ci vraiment suñu militants yi nga xam ne def nañ un travail sérieux sur l'ensemble du territoire ñu ngi leen di vraiment féliciter ñaareel bi mooy li ñu jël ci décision ci liste Yewwi Dakar ñu jël ci acte maanaam dañ koy nangu ndax ca début ba bi werante yéeg ndax démocratie nag aussi lool da ciy am xëccoo yi ñun lañu ñu jàppoon mooy lu conseil constitutionnel décidé dana ko nangu kon nangu nañu seen décision loolu nag mooy démocratie démocratie dafay tegu ci sartu yoon waaye li ñu dégg démb député Ousmane Sonko di wax jël Facebook am ne voilà mu ngi woo xale yi ñu génn ci mbedd mi dox jëm xaw ma fan dañ dem demuñ fenn sax moom ci boppam demul fenn sax ba mu ko waxee ba mag ma nga këram toog mbir cuisine voilà doomu jàmbur yi nag moom ni mu ko gisee mooy moom bu jàppee ne am na loo xam ne lii xëy na du li mu bëgg mu woo doomu jàmbur yi ci mbedd yi ne leen ayta leen ñu dee ñëw ñëw leen yéen ngeen dee bu amee lu mu bëgg nag parce que nag boobu après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux li tubaab naan scandaleux loolu kenn mënu ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sart la tegu bu élection jotee ñu wote waaye moom ni mu ko gisee mooy won nit ñi wala génn leen doon ñeenti téeméer xaw ma ñaari téeméeri junne yi nii dañuy dox jëm fii jëm fële maanaam bëgg indi tasaaru réew mi nag moom war naa xam ne mënu koo taal tey mënu koo taal guddi mënu koo taal bëccëg senegal moo mag Ousmane Sonko Sénégal Ousmane Sonko dana politique ba jeexal bàyyi ko fi loolu moom aussi dafa dañu bëgg mu leer naññ ci boppam moom it ne fii jàmm ak salaam moo fi am nit ñi teg mbir yi ci wàllu démocratie ñu jël droit bi jiital ko bu ñu demee élection nit ñi voté librement waaye bëgg a indi fitna parce que nag moom li ñuy bëgg a wax nag mooy nitu fitna la moom li mu jàpp mooy li mu bëgg bu amulee nañu indi fitna nit ñi génn ci mbedd mi seen bakkan yi loru loolu Sénégal mënu ko nangu Sénégal quand ay décennies dafa am ñu liggéey pour stabilité bi def nekk fi muy suñu kilifa diine yi mooy leader politique yi nga xam ne xeex nañ fi pour am démocratie mooy soxna yi nga xam ne aussi liggéey nañu pour mu am parité pour que ñu mën a participer ñoom tamit donc loolu bu fekkee ne dañ ci liggéey plus de soixante ans soixante deux ans bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi benn nit maanaam moom mënta tax Sénégal mënta nekk mënta tax Sénégal il faut aussi que jeunesse bi ñu comprendre loolu ndax ñoom lay woo toujours jeunesse bi muy woo nag bu ngeen xoolee seen liste yi ñoom newuñ ci de defuñu ay ay jeunes ci seen liste gis nañ sax ñoom seen i xëccoo ñiy bàyyi ñiy gedd et cetera waaye moom bu fekkee ne am na lu mu soxla rek mu ne jeunesse bi bàyyi leen seen i atelier bàyyi leen seen i voilà seen njàng euh, bàyyi leen seen salon de coiffure fekk leen ma ci mbedd bi waaw loolu loolu loolu mun c'est inacceptable c'est inacceptable parce que nag ku Sénégal ñor la lay njëkk a ñor mooy stabilité ak jàmm surtout bu ñu xamee Sénégal environnement bi mu nekk jàmm jooju li koy indi mooy démocratie bi ñu topp waaye nag ne ci talibé yi menacé te lii muy wax nag mu xam ne tiitalul kenn kooku moom loolu moom it bu ko xamoon dana ci noppalu amul kenn ku mu mën a tiital wala ku mu mën a xoqatal amul parce que nag fii aussi c'est un pays de droit waaye nag militant yii toog militant yii toog fii te ne ci Sénégal yépp <laughs> kenn ñàkku ci fay kenn ñàkku ci fay li ñuy bëgg jàmm yépp te ñu bëgg ko nag parce que mooy li jig réew am na yoo xam ne yi kenn du ko nangu te jeunesse bii ñuy woo ci mbedd mi nañu xam ne ñoom li leen soxal mooy ñu mën a jàng mooy ñu mën a faju mooy ñu mën a am formation mooy ñu mën a am liggéey kon débat bi na porté ci lool ñun li ñu nar a def mooy ànd ak fulla ak fayda waxtaan ak sénégal yi wax leen suñu ay proposition ci domaine yi ma leen wax muy emploi maanaam xëyu xale yi te président di ci góorgóorlu bu baax a baax mooy électricité te ñu xam ne depuis 2012 vraiment bëri na luñ ci faj muy infrastructure amut foo mën a dem ci Sénégal te léegi amoo yoon muy ndox muy cadre de vie voilà muy jigéen ñi aussi suñu aada ak suñu cosaan aussi ñu sàmmal ñu ko aada jàmm la ja aada diisoo looloo tax démocratie sénégalaise vraiment euh, am taxawaay bi mu am kon loolu moom ci boppam tuuti na. pour yàq Sénégal tuuti na ci yàq Sénégal Sénégal sax kenn da ko mënu la yàq kon loolu it bëggoon nañ ci waxtaan ak askan wi vraiment wax leen ne ni ma ko waxee ñun accepté nañ li conseil constitutionnel décidé dinañu dem ci ay élection voilà ñu organiser suñu bopp ànd ak suñu jeunesse woo jeunesse bi aussi ñu mën a ràññee bañ a nangu aussi manipulation bi ndax nag aussi defe nañ ne xëy na yéen seen xel dafa woyof ba ku ñëw képp ko waaye jeunesse sénégalaise su ko xam gis ni mu génnee massivement bi ñu indee Coupe d'Afrique bi fii des millions et des millions génn célébrer nos joueurs ñibbi tranquillement xam ne jeunesse boobu kenn mënu leen a manipuler kenn mënu leen a manipuler dañuy jàng rek voilà donc jàmm ji jàmm ji vraiment mooy li am solo Sénégal yàgg na organiser ay élections dans la discipline voilà élection yi ñu mujj mooy les élections municipales ku gagné gañe te am nañu yaakaar incha allah ne le 31 juillet Benno Bokk Yaakaar dina remporter largement ces élections incha allah. non doy nañu question un ou deux questions. prendre deux, trois questions. Puisque nous, je le rappelle, nous, nous osons faire face à la presse. Nous ne faisons pas de déclaration simple. amul beneen micro foofu ah. bii bu mu dem. bii bu mu dem. waaw waaw. Hmm? ko nangu jaratul ngay dugg ci débat bi dañ leen di bàyyee seen cër nous prenons acte bien que évidemment la décision nous est défavorable et quelque part nous intrigue mais ce n'est pas le plus important le plus important c'est que nous respectons la décision du Conseil constitutionnel journaliste ah. Youssou. waaw acca acca acca allez-y. Youssou allez-y. allez-y waay. Youssou. Youssou allez-y. Eh, Youssou allez-y waay. moi je m'appelle Youssou Diop, le euh, journal exclusif. Alors, euh, je vais poser une question par rapport à l'appel à l'insurrection d'Ousmane Sonko. Dans un contexte où le Sénégal quand même li ñuy ñaan yàlla li ñuy wax ci réew mi ci ressource pétrole ak gaz ak li ci nekk comme développement ailleurs ñu ñaan yàlla bu sël madame le président de la question quelqu'un en tout cas dans le résurrection loolu dalul xel mag ñi yaa ngi yi xale yi tout le monde au-delà du fait que c'est plus de politique appel à l'insurrection tey plus ça passe sans réaction demain quelqu'un d'autre état bu toog fii ñun ay politique la ñu ñu toog mais li ma wóor ba wóor mooy état day jël ay responsabilité état mooy jël ay responsabilité je pense que effectivement c'est un fait très grave dans un contexte où on voit d'abord ce qui se passe même dans le pays dans les pays voisins Sénégal n'est que l'îlot de stabilité et de paix au moment où on parle, où on annonce notre production de pétrole et de gaz, c'est à se demander, est-ce que Ousmane Sonko ne prie pas pour que le Sénégal soit instable C'est la question sérieusement qu'on se pose. À qui profiterait l'instabilité du Sénégal à laquelle appelle Ousmane Sonko camarade waaw cher cher est-ce que waaw n'oublie n'oublions pas nag ci conférence de presse la ñu nekk yéen tamit waaw bu ñu paree journaliste yi ñu dellu ci suñu animation yooyu donc madame votre euh, question on va y répondre tout simplement euh, d'abord pour ceux qui connaissent le président de la République ils doivent savoir que ça ne lui ressemble pas du tout pas du tout alors ce qui a été écrit et je peux vous apporter vous dire de manière formelle et claire que cela ne s'est jamais passé. Le président Macky Sall respecte ses collaborateurs. Respecte ses collaborateurs. Le président Macky est connu, pour sa grande cordialité. Et bien au contraire, hier, le communiqué d'ailleurs est sorti, il a remercié tous les alliés Et évidemment, il a remercié et félicité le mandataire. C'est tout le contraire de ce qui a été écrit. Donc ne vous laissez pas non plus parfois manipuler par la fausse information de certains encouragé toute la coalition à rester forte et unie parce qu'il ne fait aucun doute pour lui que le juillet, notre coalition sera victorieuse. Donc, madame, en un mot et en mots, cette information est fausse. Et merci de l'avoir posée pour également la clarifier. voilà jël benn question rek. pas de question. voilà. ils en ont pas jeex na